ñëpp xam nañ ko waaw nit ñi ndoxam moom la naan bu ñëwee fii ne nag indi fi ay teraanga ah pour def ko san mu ñeel waa Medina bàyyi ak taalibe yeeg ak képp koo xam ne ni jullit nga comme yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci maanaam joxe ñam ak joxe lekk paasax weeru koor waaye joxe lekk rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn tib boo jël nga jox ko jaami yàlla mu dugal ko ci biiram tolloon nag nga nga tabax junney jàkka yoo xam ne jàkka bu ci nekk dana toll dana toll ne comme jàkka ji nga xam ne moom mooy nekk moo kon loolu bu fekkee ne tey waa Kirène bu ñëwee fii na Baye gii nga xam ne dañ koy def partout au Sénégal ñëw Medina Baye fii pour def fi teraanga gu mel noonu kon amuñ dara lu may sant leen ñu ngi leen di sant nag ci turi xalifa bi Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass ak ci turi imam bi Cheikh Ahmed Tidiane Cissé ak ci turi mbooleem koo xam ne da nga am ne yaa ngi fi toog ñëpp nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla waxtu wi nag dafa gàtt lool te mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo fi ne bëgguñ leen a ndax ñoom ñëpp dañoo nekkoon ci jumaa ji yendu fi ba nëgë ni kon war nañoo war nañoo dellu ci seen ci njaboot gi waaye daal ak lu mënti xew daal ñu ngi leen di gërëm di leen di sant ah ci njiitali Cheikh Dieng mi nga xam ne dangaa ne moom moo ñu may opportunité bii xam ne pour ñu mën a mën a wax ci tuuri Medina Baye yëpp ci tuuri Medina Baye yëpp ci ndigali xalifa bi ak ci ndigali imam ak ci mbooloom yëpp yéen waa Kirène ñu ngi leen di xamal ñu ngi leen di gërëm di leen di sant ñu leen di gërëm di leen di sant ngi leen di ñaanal yàlla ndax société société la boo xam ne societé sénégalaise ay waa Sénégal ñoom ñoo ko moom yaa ngi dégg suñ produit la ñun ñun ñoo ko moom ki ren ñun xam nañ ko bu baax ndax ñun moom la ñu naan yaa ngi dégg kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen di sant ñu ngi ñaan yàlla société bi yàlla na ko yàlla gën a kaweel yàlla na dem ba nga xam ne danga am ne fu ne la seen seen produit di dem dégg nga yàlla jaaye ko yàlla barkeel leen barkeel njaboot gi yëpp barkeel yëngatu bi ak dal yi barkeel tamit mbooleem koo xam ne da am ne yaa ngi fii nii teew ci jotaay bii ñu ngi sant yàlla wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. dañ koy sof suñu way sëriñ Sidi Ali mu nga xam ne moo njëkkee kàddu yu tedd googu di sëtti Mawlana Cheikh Ibrahim wante nekk muhasin ci jumaa Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne ay waxtam yépp ci jumaa ji la koy def ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax di leen tàggatal ci Medina Mawlana Cheikh Ibrahim mi produit bi nga xam ne mooy karen nga xam ne ñu ñëpp moom ne ni naan ñu ngi leen di ziyaara fii ci Medina Maulana Cheikh Ibrahim nga xam ne mooy Medina saay bu fayda képp kiy seede la dara sa xel daj bàyyi rek xamal na sa mbir am na tawféex rawatina weer wi nga xam ne mooy weeru ko di sang mbooleem weer yi dëgg-dëgg ñu jóge ko ci fukk yu njëkk yi mi yërmaane yàlla amul dara lu muy junj di junju yonentu yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla wax na ko maa arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiin fukki yi nga xam ne mooy ñu moom ne nekk mi maxfira ku nekk xam na ne Cheikh Ahmed Tidiane mooy saay bi maxfira ñun loolu la yàlla may suñu wërdu wi ñuy def suba ngoon astafurlah téeméeri yoon ci ngoon gi ñu koy def téeméeri yoon mu nekk ci wasifa bi ñu koy def trente trente fois bi bi set ñu koy def deux a trente dëgg-dëgg loolu yëpp ay mbóot la kon dëgg-dëgg ñi nekk ci ñi jëm ci mujj gi mujj gi gu tett lu dara lu may Mawlana Cheikh Ibrahim mu nga xam ne mooy njëgal yàlla moo wane wa may yuhibbu ni wa may yaraani fii jannati xuldi bila botaani ñu ngi ñaanal yàlla Baye Muxtaar mu nga xam di sët Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne suñ ñëw fii nii moo jokkoo Sidi Ali mii nga xam ne moo doon jàng Alxuraan bi ñu bokk mooy ñëw nga xam ne amagun benn bàkkaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla may leen dem yàlla yàlla dafa leen tawfeex seen produit bi yàlla na ko yàlla yëkkati ba àddina bi yëpp xam ko ñu ngi ñaan yàlla xalifa bi tukki na mi ngi màkka di joxe ci sunna yénentu yàlla mo saas di umra ñu ngi ñaan yàlla lépp lu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko leen ci jàmm di ñaan imam Cheikh Yali Cissé di ngeen maa ngi leen dénk na ngeen gën a jàpp Medina Mawlana Mawlana Cheikh Ibrahim fépp foo leen dem ñii amuñ jot sang yi nga xam ne ay sëti Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne amul kenn ku leen gën ci kaw suuf ñu ñëw jóge ko ci jumaa ji nga xam ne dafay faadara ñëw fii say ñaqi ñu wàccee ko fii dëgg-dëgg war ngeen a fonk dëgg-dëgg pay bi yal na yàlla fonk leen yal yàlla tere leen wakulaa want bi xeyr wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum euh, mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant euh, di beral nuyoo nekk euh, waa dëkk bi bu ñu waxee waa dëkk bi rek dañuy tàmbalee ci kilifa dëkk bi xalif bi nga xamante ne mu ngi Makkatal Munawwar euh, ci jamono ñu toll di ñu koy ñaanal euh, bu ñu weesoo si loolu ñu nuyu rek si euh, kilifa yu tedd yi toog fii imam ak ñu mu àndal ñëpp ak njabootu Baye Niass yëpp groupe Kira nag bu ñu ñëwee fii tey ci Kaolack dañ fiy ñëw ak contentement parce que ci période bi ñu fi ñëw la muy weeru koor ñëpp xam ni dëkku diine la boo xam ne l'islam dañ ko fi teewal bu baax a baax donc Kira nag dañu teewloo saa ñëwee ci atu weeru ko weeru weeru koor bi di wër fépp ci biir Sénégal di partager ay ndogu donc ñu koy def ci euh, dëkk yëpp euh, Touba euh, di koy def jas fi Kirène sokke ko parce que Kirène tamit turu dëkk la dëkk séréer bu nekk Diass donc ñu dem fa aussi dem Kirène dem ci gox gaxaan yëpp donc ci tàmbali bi dañ ko doon def biir dakaar kese mais ñu ne Sénégal du Dakar kese foog ñu dugg ci biir dëkk yi te bu ñu waxee weeru koor nag dañ koy delloo dëkku diine yi nga xamante ne ñun nag comme que yàlla daf ñu beral loxo mu am ay dëkku diine yu bëri yu nekk biir Sénégal am ay kilifa yu am xam-xam yu bëri yàlla may leen donc ñu ne boobaa foog ñu ñëw ci ci ci dëkk yooyu pour nga xamante ne nañu wane groupe Kirène ñëpp xam ko ci ci ci ci gàmmu yi ci ci ci màggal yi at bu nekk bu ñuy def gàmmu fii ci ci ci ci ci ci Kaolack dañ fi indi ndox di koy partagé ak pèlerin ñu koy def Touba di koy def Tivaouane di koy def si dëkku diine yëpp donc tey ñun plaisir bu rëy la ñuy am ñëw fii nii biir euh, Kaolack pour partager fi ndogu bi euh, ak suñu kilifa yi donc di nuyu bu baax aussi euh, Cheikh Dieng bi nga xamante ne moom mooy fii représentant ci ren moom moo nekk ci dëkk bi di fi liggéey nekk fekk grossiste yi ak partenaires yi ñu am suñu partenaire bu jàmbaare bu toog fii di wuyoo Lay Dial Euh, mu dëkk fii ci Medina Baye di fi dawal business am représenté fi Kirène euh, taxaw ñu fi taxaw bu rafet mook Cheikh Dieng di fi def liggéey bu rafet donc ñu ñëw taxaw fii ñoom ñoo yembal liggéey bi yëpp euh, waxtaan ak soxna dëkk bi ñoom ñoo géré togg yi ñu ñëw saafonte bu baax at waa waa waa dëkk bi lépp lu ñu fi gis rek waa dëkk bi ñoo ko def dañ ñëw ànd ak ñoom ASP jeunes yi dëkk bi ñoom ñoo fi nekk di toppatoo lekk yeeg lépp lu ñu fiy partagé donc mu nekk lu am solo mu gën ñu jegele Euh, Kër Baye te yaakaar naa ni euh, dinañ gën a xuus euh, ba ñuy gën a mën a échanger ci seen yitte parce que tamit boo nekkee ci dëkk di fiy jaay di di di yëngu si li ñuy wax jënd ak jaay day baax aussi ci xaalis boobu noonu ki di liggéey di ci am ñu mun ko delloowaat ci biir dëkk bi. Euh, waa dëkk bi mun ci profité ñuy def ay ay ay programme yu am solo euh, yu ci mel ni ay set setal ay ay ay ay ay defar dëkk bi daal di ànd ak ànd ak euh, mairie yeeg di ànd ak lépp lépp li nga xamante ni keneen mën na ko def loxoom rek ci biir dëkk bi pour mu développer dëkk bi incha allahu rabbi dinañ si gën a taxaw te yaakaar naa ni dinañ profité si occasion bi gën a waxtaan aussi jël numéro kilifa yi pour li nga xamante ni saa seen soxla nekkee ci keneen rek moo gën a gaaw parce que ñun loolu mooy sunu si sunu yitte. te loolu mooy suñu wareef aussi en tant que entreprise sénégalaise bu nekk fii biir Sénégal dañu war a taxaw aussi dëkk bi ak gox goxaan yi euh, loolu daal euh, la ñu amoon comme ay kàddu ñuy doon partagé di kontaan bu baax xam nañ seen jot bariwul surtout ci weeru koor bi fu mu toll nii euh, di sàkku si yéen ñaan bu baax a baax ngeen ñaanal ñu ñu leen di gërëm di leen sant di kontaan bu baax.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 الفاتحة ما شاء الله